wax fii léegi décision Macky Sall je pense que moom moo ko jëlal boppam. comme ni ko waxee c'est très important. amul benn influence naa de quelque part ou bien benn pression sénégalais nañu bàyyi loolu. Macky gis na ne lii la wax na ba wax livre bu mu bind loolu la suivre ba jël décision boobu ñëw def déclaration je pense que nañu ko rafetlu ñu bañ indi xeen yi bii c'est pas important. c'est pas important su ma ñëwee ci eh, opposition ko kaddu Sonko tu sais que nit sooy jafandu ci benn garab nga teg ko alibi alibi boobu nag fu mu ne nii dañ na je pense que fu mu ne nii ñoom ci lan la ñuy waxati fu mu ne nii les gars de l'opposition en l'occurrence Pastef les détenus politiques vont dont vous disiez le pays ne peut pas marché avec ses perturbateurs dëkk day dox ci anam yu leer ci ay charte yu ko lal donc soo amee benn parti boo xam te ñëw na sàncu di commencer di perturber di di piller je pense que c'est ça qui est dû à ces arrestations. c'est dans les deux côtés hein. c'est je pense que. Mm-hmm. Euh, à ces cela je pense que détenu yi détenu yi c'est pas que euh, Pastef kese c'est pas Pastef kese nit doo nekk si dëkk nga def lu la neex donc am na yoo xamante ne il faut que nii. ñu delloo ci seen xel xam ne euh, dëkk bi yoon rek moo fi mus a dox déjà ça s'est fait distinguer par euh, la déclaration du de son excellence le président de la république nañu rafetal xol yi ñu waxante fu mu ne nii actuellement fu mu ne nii moom nañuy waxante lu lu lu kii rek donc ah, ñëpp nekk ku nekk waaw lu baax daal ña leen ne nañu assumer seen responsabilité fu mu ne nii amatuñu ay troisième mandat yu ñu doon wax noonu ah, pour pour laisse-moi aller laisse-moi euh, di di di di jafandu ci ay troisième mandat ta ta ta toujours ce ce débat là vraiment euh, dafa pourrir la l'environnement politique donc actuellement troisième mandat le président son excellence ah ah ah actuellement dafa ñëw ñu ko andi ah décidé na lu muy kii troisième mandat ak Sweet Beauté dafa dem ba polluer le débat complètement koo wax mu ne le troisième mandat koo wax mu ne le Sweet Beauté cest à dañu dem ba benn instant il n'avait plus d'argument ñoom daal fu mu ne nii nañu assumer fu ñu demoon ak décision de justice ku nekk na nga son excellence assumer na fu ñu doon jafandu ji naan ay troisième mandat loolu amatul le président il a il a ses responsabilités. il y a pas une pression venant de d'extérieur ou d'intérieur il y a pas.